salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh wa barakaatuhu groupe Sakku Xam Sa Diine seen mbokk Medoune Dioum leen yu baax baax eh, di teg sama loxo ci audio bi jeexale 21 94 leen yu baax a baax di groupe yëpp nag leen yëpp Pape Abdou defe naa gis nañ ko ci kaw ndeysaan ñu ngi déglu seen waxtaan ñu ngi ñu ngi leen déglu en tout cas kii dafa am ay laaj yu mu laaj di wax ne kilifa gi li mu wax mel ne eh, maa ngi dégg mu ci laaj naan dafay yaakaar ne dafa maanduwut ma wax ko ne li mu wax wallahi waxu ko ngir ñàkk a maandu dafa xamul ngay wax dafa xamul ku xamul nag dañ koy xamal ku xamul dañ koy xamal danaa leen wax fàttali benn affaire boo xam ne am nañu ko ko fàttali daaw defe am naa koy na ko ma koy wax keroog sama xaas ma ne ko atam ci Thiès bi mu demee ci sëñ sali ture ne da ko fay jëlee ñu ñëw comme ni nga wax noonu sëñ ñu ni nga ko laajee noonu am ku ñëw wax ko ne ko waaw nañ ko fa jëlee ndax dafa mag dafa nangam nga xam ne muy lu bees ci diine parce que <laughs> ñoom daanaka ni ñuy toogee ku mag yaay toog mu am Saliou Touré yàlla dimbale ko mu nekk ba ba mu gënee nekk gone ba ni mu toll di borom xam-xam di jàngalekat di jaamu ko te yàlla koo ko xam-xam ne wax di yàlla jàmbaar ñu xëy naan daa xamut ak dafa màggat ba ko faa jëlee keroog bañ demee kam yabal dañ koo toroxal ba mel ne zéro waxuma la un de dañ koo toroxal ba mel ne zéro mu daw dellu ba fii may wax ak yow mujjul fenn fële da caa mer ba toj bopp mënu ca dara. loolu ay nit a ko fajal seen bopp kon foofa dañ koo xamal